saaka almuta wa saaka sujja asalaamaaleykum mbokki taalibe yi xam ngeen ni bu ngeen déggee sunu kaddu nag ah màggalu xaadim rasul bis bi sëriñ tubaa wàcceeb liggéey cheikh moustapha jële ko njaareem indi ko tubaa ta xaddam wane la ko rasulillahi yàlla di ko fay rasulullahi di ko tee mooy màggal gu mag gi dégg ngeen cheikh amadul maxtaar na ma ko waxe waaye doomam seen sët bi ndigal te man ci ndigal tey jafe ndigal kooku mooy kan mooy sëriñ moustapha mbakke mouhamed borom afi bàyyil xaj bu ngeen déggee sunu kaddu nag le huit mooy bisub cheikh moustapha bi ñu jële woon sëñ bamba njaareem indi ko jëbal ko yàlla ak rasulillahi bis boobu sëriñ moustapha mbakke mouhamed ak dayra xilaafi bàyyil xadim yëpp takk ko nañu def ko nañ ko daa defee màggal ko nañ ko daa màggale yëkkati ko nañ ko daa yëkkatee jëfe ko nañ ko daa jëfe looloo waral ah ndigal loolu rot ci sëñ baara rakkam ji ki topp ci sëñ Moustapha yore afi bàyyil xadim ak dayri yi sëñ baara foo ko seen muy dem bu laajte ci ndigal sëñ Moustapha Mohamed la nekk ak kan ah Baye Ndiogou ma àndoon ak sëñ Mbàkke soxna loo toogal ko fii ci Ndakaaru toogal fi sëñ Moustapha Mohamed ak la ko wër ak ñi ma àndal ñëpp ak kan Baye Cheikh Jenn mi nga xam ni mooy jiite section Dakar ànd ko ak ñoom ak afi bàyyil xadim yëpp la set altine bu jotee ca Fass Mbaaw ci suba la ñuy ànd ak sëñ Baara mu jiite convoi bi jaar kees jël waa kees dem jaareem fa lépp sosoo xaar waa Kaolack dayra ba ñëw fekk leen fa afi bàyyil xadim yëpp àndandoo dallu dafay waxtaan jël xéwal yi màbba nag dem Touba fekk sëñ Moussa Mamet borom niveau ji kon bis baa nga noonu le huit di màggalu xaadim rasul moom dong la ñu wax ni ba ko mu Moustapha jëlee njaareem indi ko Touba ko fanaan ci bis bi boo xëyee tàggoog bakkaar dar xudóos réclame na ci ñëpp def fekk sëñ Moussa Mbacke Mouhamed borom niveau ji